maa leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen sant bu baax ci woote bi ma leen woo tey ngeen wuy si ma vraiment sama xol sedd na trop parce que maa ngi koy wax léegi sama benn xarit ma ne ko bu wootee say mbokk wuy la waaye tey yaakaar naa ne samay mbokk ak samay waa famille lamb yaakaar naa ne ñëpp teew nañu ci woote bi ma leen woowoon vraiment aw ma seen fay du ma limaan ci remerciement yi nga xamante ni suma père nga xamante ni may Pape Birahim wax na ko suma xarit góor jaar na ci sànq père Pape jaar na ci sànq moo Modou jaar na ci damay dugg directement ci ñi nga xamante ni mënu ma leen ñàkk bañ a tudd parce que sumay kilifa lañ muy suma père Omez parce que sama papa la def na ma comme doomam di ma conseiller ci làmb saa yu ñu dajee du làmb kase sax na may ko daf may conseiller ci sama carrière kon père Omès aw ma fayal ci li may def noonu di sant suma père Sagne vraiment moom it lii bañ koy sumb daaw mi ngi ci woon di ci dox ba jon yàlla tey jii mu ñëw toog suma papa Pambaay moom waxaale wu ma ko damay toog sax ñu ne ma Pape Mbaye mi ngi lay tudd ci émission rajo bi kon fàttewuma parce que kuy def émission rajo bi la tudd saa su nekk kooku xelam ñu ngi ci doomam bis bu nekk di sant ñi nga xamante ni mooy waa mouvement ànd defar muy mouvement bi nga xamante ni dama bokk ak ñoom ci defar luy defar rek ñoom ñi ngi ci ma leen ci sant di ci jiital Moustapha Samb sama grand frère sama royuwaay moom it ci lépp loo xamante ne da koy def ci li def nii di sant ñi nga xamante ni mooy mouvement Mbom mag si sama xarit la moom sama estati na gis na ma damay ñëw vraiment parce que dama bëggoon sax affaire bi nekk affaire bu restreint bu ndaw mais comme sama nit la nee na ma yow loo xewle lépp lu ma jàpp dinaa ko bàyyi ñëw ànd ak sama groupe ñoom laay kon group bi yëpp vraiment saaba bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp vraiment bu ñu ñëwee fii dama leen di sant leen gërëm bu baax di sant en même temps na jum ak ki nga xam te ne mooy Pape Fall bokk ci waa Kër Laaj Diop ñoom bokk nañ ci ñi ma jox salle bi ma def nii li nga xamante ni mooy conférence de presse mënoon naa ko def sama koñ waaye seen yéene ak seen bëgg-bëgg moo tax ñu ne ma dañu bëggoon nga ñëw def ko fii ma ñëw defee ko fi te aw ma ci benn problème vraiment maa ngi leen di sant. di leen gërëm mais jum parfaan su ma limee damay jum maa ngi leen gërëm bu baax ci seen teewaay bi ngeen def nii kon directement dañuy daal di ñëw ci li nga xamante ni mooy projet 300 litres ci lañ bokk li tax ma initié ko li tax ma initié ko mooy dañu seetlu écurie boo dem boo defee sondage yi ya yaakaar naa ni lu mat 5 pour cent ñoo ci bëri année boo dem nag Sénégal ma xalaatoon ma ne dinaa créer benn tournoi boo xam te dina may booy compétition ci lañ bokk nag boo ko déggee mooy mbëri yi nga xamante ni dañu sol ci équipe bi di entraîné te amuñu sens di bëri arène dinaa leen jël defar leen benn tournoi boo xamante ni dinañ ko def 300 lutteurs jël ko par département departement bu nekk ñu jël fa 75 bu ñu jëlee 4 département yi loolu mooy région de Dakar tournoi bi yéen ci région bi loolu noonu laa dinaa ko def. indi ko ci biir arène bi vraiment bi ma ko xalaatee war ko def dama ci sant suma papa yi ma lim fi léegi nii di ci sant père Modou Bey parce que 300 lutteurs yi ñu sélectionné nii ci loxoom na nekk ci moom na nekk moom moo ci démarché li nga xamante ni mooy 300 lutteurs yi aw ma fayal ci li nga xamante ni mooy démarche boobu mu ci def. mu nekk ci lañ bokk parce que yàgg nañoo gis ay mbër yoo xamante ni dañu entraîné ba mujj bàyyi dem def leneen wala def loo xamante ni sax neexul wala desoon ci équipe yi sax moo gënoon parce que dañoo découragé ci làmb ji parce que amuñu ku leen tëggal yaakaar naa loolu nag vraiment moo gën a yokk tax ñu initier le projet 300 lutteurs mooy ci lañu bokk parce que li tax it moo boobu du ma ko fàtte dafa am mbër moo xamante ni dama doon tëgg combat. bi ma demee seeti mbër bëri ci écrit bi booy bi mi ngi peese presque 65 kilos mu ne ma grand cousin pourtant ñun ci làmb ji lañ bokk lan moo tax ñun kenn duñu seetlu dañuy tëggal combat ci mbappat yi ci lañ bokk boobu foofu la jóge moo tax ma initié ci lañ bokk boobu dinaa fexe ba lutteurs yi nga xam te ne ñoo nekk ci écrit yi am licence ma defal leen benn tournoi tournoi bi nag dinaa ci ñëw après ci kanam ni muy démarré mu ñëw ci li nga xamante ni mooy deuxième point bi ñu ne 300 lutteurs yi dinañ leen présenter ci benn journée boo xamante ni day nekk lutte avec frappe ñi ngi ci combat boobu amoon naa yaakaar sax ni tey ñaari mbër yooyu dinañ taxaw fii def seen premier face à face. mais comme barki dem la ñu déggoo ak benn mbër bi mu ñaan ñu ne comme ay mbokkam dafa bëgg woo ay mbokkam kenn ku nekk wax ko ne ko am na combat diw nay bëril ak diw nañ ko may loolu parce que tey jii bu fekkee damay def point de presse bu ko journaliste yi jëlee yaakaar naa bu ñu xëyee ku dem suñu làmb wala ku dem ci li nga xamante ni mooy Leewtoo TV wasaare ñi nga xamante ni mooy Big TV yaakaar naa ne suba combat boobu dina siiw te nee na bu combat bi siiwee ay mbokkam ñenn ñi dinañ ko mere parce que dinañ ko yëgaloo ñu ko te ci presse bi nañ ko yëgee man nangul ko loolu man na ko dinaa la ko nangul amul benn problème mais may nañ ko fii ba demee bu fekkee ni accord am la ñu waxante woon d' accord rek dinaa woote yéen ñi nga xamante ni yéenay amul làmb wax leen ne combat arène boobu mu war a démarrer suñu tournoi lutte avec sans frappe journée boobu noonu la ñuy def journée avec frappe trois 300 leaders ñu taxaw xam ne ñii ñooy bëree tournoi bi Ousin muy ci lañ bokk. kon kooku ñu ngi ci am yaakaar que dinañ ko def le 22 février wala le 29 février mu war a nekk samedi ñu ngi négocier arène national bu ñu yàlla dimbalee dinañ ko def foofu bu ñu amul arène nationale tamit dinañ jéem a xool stade Amadou Barry bu Guédiawaye ñu defee fa li nga xamante ni moom mooy programme bi ñu bëgg a di ñëw toujours ci programme bi ñu ne troisième yi nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni mooy première journée tournoi bi tournoi bi nag ñu ci bari bu ñu déggee trois cents lutteurs dañuy ñëw ne ma loolu lu mën nekkee ñetti téeméeri mbër ñooñu fan la ñuy bëree xamal leen ne leen loolu Aliou Téere mu ma juumul mi ngi ni toog bi ma koy def 2014 mooy de 65 kilo bi moom moo ko jëloon te xam na tournoi bi nan la demee ba mu jël ko ñi ngi leen def ay combat nommé nay doon parce que dañu ne ñu jël benn mbapat kese. mbër mi mën na dem bëri ñu daan ko pare nañ ci ci benn journée rek combat yi jeex 300 yi jeex man dem rek du ma initier loolu damay def ay combat domaine jël 60 lutteurs jël ci mu nekk 30 combat loolu laay jël def ko par journée kooku bi ñu ko calculer mu jox bi 5 journée premier tour bi jeex kon kooku noonu nañu bëgg préparer. parce que wax nañ sànq ci tournoi bi quatre départements yi nga xamante ni moom lañ ciblé nekk fii ci région de Dakar wax nañ ni bu fekkee Dakar dinañ dem fële nga xamante ni mooy adresse Senghor foofu lañ bëgg a jël li nga xamante ni mooy ah, ouverture lutte sans frappe bi bu ñu jógee adresse Senghor dañuy ñëw Guédiawaye am lu Barry dinañ fi ñëw def journée boo xamante ni mooy département de Guédiawaye bu ñu jógee Guédiawaye dinañ dem Pikine en même temps xool naka la ñuy def ba bu ñu mënee dellu arène nationale def fa lutte bi muy lutte sans frappe bi muy département de Pikine bu ñu jógee Pikine dem fi nga xamante ni mooy Tëngéej ah, département de Tëngéej def fa li nga xamante ni mooy beneen journée bi dellu si waat nag fi nga xamante ni mooy adressé noor ba foofu dinañ fa def deux journées parce que li tax deux journées mooy ñun suñu problème mooy problème mu stade nañu am ñun promoteur yi ñu day problème mu stade nañu am parce que tey wax nañu am Iba Mar Diop dañ koy tëj à partir du 12 bu ñu ko tëjee benn stade moo fi nekk amul bari ñu fii négocier yi métti nañ nekk pour am ko stade boobu moo fi nekk boo xamante ni lutte sans mën nañ ko am ci li ñu nga xamante ni moom lañ bëgg li nga xamante ni moom lañ def ci ñi nga xamante ni mooy waa adressé or ciy wax bu benn per bu ñu wax père euh, ngóor xamaloon na ma carrément que boo leen ñëwee ci làmb rek stade bi mi ngi taxaw boo leen jëlee date bu kenn jëlul di ngeen mën a organiser li ngeen bëgg a def saa yu leen ko bëggee kon kooku nañu yaakaar ni dinañ mën a def suñu premier cinq journées yi nga xam ne moo war a durer ci trois cent lutteurs yi kooku loolu nañ ci xalaat def ko di ñëw ci cinq quatrième point bi nga xamante ni moom mooy waa couverture maladie universelle loolu nag su ma ko su ma initié programme bu mel ni dem lëkkaloo ak ñoom parce que dañoo am benn slogan bu ñu génnee muy feebar faju làmb ji da ngay seetaan émission làmb wala nga dem stade ñuy jàllale message boo xamante ni képp kuy dund làmb sa yaram dafay daw ci problème yi dal yi nga xamante ni muy mbër yi muy mbër feebar mënul faju mbër feebar ñu koy ketal ba ku ko gis ci melokaanam maar day taal da am lu la métti man ma ne comme CMU dafa ñëw muy couverture maladie universelle ma contacté leen ànd ceeg suma benn grand ñu koy wax monsieur Fambeng mu jiite li nga xamante ne mooy union régionale de Dakar ci li nga xamante ne mooy mutuelle de santé yi mu waxtaan seeg moom mu ne man loolu war na mën a nekk ci 300 lutteurs yi ci contrat yi ma bëgg a liggéey ak ñoom mooy mbër mu ci nekk dinaa ko jox carte couverte maladie universelle jox ko ko pour mu mën a kenn ñaanalu ko kenn mooy bu feebaree faju parce que dañu gis ni ci contrat bi ñuy signé ak ñoom dinañ ko ci jëlal carte defal ko ci adhésion boo xamante ni annuelle la adhésion bi nag wax ñoom chaque jour ñu jàllale li nga xamante ni mooy seen adhésion li nga xamante ni mooy couverture maladie universelle lu dara lu dul 1000 francs la 3500 ngay ngay ngay ngay ngay am ngay adhéré li nga xamante ni mooy at loolu nag vraiment biñ koy biñ ko waxee ma xalaat ni 300 mbër yi nga xamante ni sélectionné leen kenn ku ci nekk di am sa carte at mi xëy na dina démarrer mois de février fii ba février 2021 ñaanalul kenn mais boo feebree état Sénégal dina jël à 80 pour cent ci sa ordonnance bi ngay fajoo wala ordonnance bi ngay fajoo wala hôpital bi nga xamante ni moom ngay nekk kon loolu dama yaakaar ni muy caméraman di ñi nga xamante ni amateur góor a di ñi nga xamante ni mooy euh, képp muy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci axlu làmb war nañoo mën a jënd ci carte euh, feebar faju boobu muy couverture maladie universelle loolu moo nekkoon quatrième point bi nga xamante ni ci la nekk ni di leen sant di leen gërëm di wax ni bu fekkee am na ay questions yoo xamante ni ñi fi toog ñëpp am na lu ñuy laajte ñu laaj ñu ko ñu tontu leen ci li nga xamante ni suñu xalaat fa la mën a leen sant di leen gërëm ci li nga xamante ni moom laa bu wax di jubee nag ngeen xam ni suñu borom la mu déggee nga xam ni man jàmm yi Ouzin rek maa ngi wax li nga xamante ni loolu sama xalaat la di leen sant di leen gërëm merci beaucoup. que lutte lutte sans frappe 3 minutes la lutte avec frappe 10 minutes te ñoom souvent dañuy bëgg géew bi dinañ mën a jël dugal ñaari combat wala ñetti combat ay yi dañoo nekk négocier ak ñoom parce que xale bu préparé combat ba ñëw ay mbokkam dañuy bëgg ñoom ñëpp seetaanandoo benn combat kes ci géew bi te loolu la ñuy négocier ak ñoom mais lutte sans frappe moom da ngay mën a bëree ci 3 minutes rek wala ñu def kenn victoire nga dem. kon loolu noonu vraiment ñi ngi ci waxtaan ak ñoom te yaakaar naa ni lañ ca waxoon daaw ak ñun ci loolu xam naa ni ci lañuy sukkandiku mooy dinañ mën a am loolu noonu 30 pomba yi ñuy def par journée parce que dañuy seetlu war a demee adresse Senghor lafay fay ci journée ci benn jour ëpp na 50 pomba ci benn guddi kese bii nag xëy na am na comme dina mbër mu ciy bëre dina am licence dina normal ci li nga xamante ni moom lañ ñi règlement yi ñu wax ku amul licence lu ci bëri kon boo xasee ba am licence dina am réglement boo xamante ni dinañ ko jox say staff parce que yi nekkul combat yoo xamante ni comme ni mu ko doon tëggee 2014 moom dafay am réglement yoo xamante ni CNG ñoo koy teg te CNG bu tegee réglement moom ci règlement am nañuy sukkandiku kon loolu ñuy sukkandiku ci réglement bi mooy 30 combats yi ñu bëgg. xam naa dina sotti waaye temps bi moom ci lutte simple moom xam naa ne 3 minutes la te 3 minutes moom bu ñu ko doon calculer ci 30 lutteurs ak préparation bi yaakaar nañ dina ci dina ci dina ci xaj lépp ci ci ci ci li nga xamante ni mooy trent 30 combats yi ñuy def par journée. di la sant père euh, Pambaay bu fekkee waaw tous bi moom waaw loolu tous du fi moom. tous moom du am ci parce que 60 litres boo xoolee lu mel ni Adrien Senghor parce que xat na xat boo xamante ni ñëpp mënuñu cee tous xëy na nag du ñàkk ci suñuy journée ñun dinañ ci jël ay quelques combats yoo xamante ni moom mooy grand combat bi wala avant grand combat bi ñu xool table major bi bëri ñu xamal ko di mën a dëggal 3 litres wala ñetti combat di nga ko mën a dëgg muy 6 litres. kooku dinañ ko négocier mais 78 heures moom yaakaar naa ñëpp mënuñoo tous parce que comme li ma waxoon rek projet bi defoon nañ ko 2014 amoon nañ ci expérience ni ñu ko def lépp ci waxtaanu staff kii indi bët mi la dinañ ci discuter ak ñoom kon loolu daal bu fekkee leer na loolu lañ am lu ñuy tontu ci question wu père Bambaye bu amee keneen lu ñuy wax tamit ñu jël keneen lu ñuy tontu. léegi moom lay nuyu bu baax. li may tontu ci question boobu mooy peut-être ay combat nommé na wax ci problème mu mise beneen bi ci des mooy comme lutteurs yi mooy journée bu ñuy def léegi ko ba journée bu ñuy def bër mu ci nekk dina am ci lutte simple bër bu nekk. dina am cachet boo xamante ni dina ko am ci lutte simple beneen bi ci des mooy dimanche yi nga xamante ni moo nekk adressé ma ki nga xamante ni mooy responsable xamal la ma ni dimanche yëpp fees na ñun ñi ngi ciblé vendredi euh, mercredi wala samedi kon tournoi bi bu ñu dem adressé soit day nekk mercredi soir wala mu nekk samedi soir ci li ñu jotoo tënk ci adresse ngoon bu amul promoteur bu war a tëgg dimanche dem ba ci biir bàyyi mais li ñu jotoo wax mooy dimanche moom fees na kon lutte simple bi samedi lañ koy tëgg bu dee adresse ngoon wala mercredi loolu moom mooy kii bi beneen bi ci des mooy tournoi bi wax naa ne mbër mu ci nekk dina am cachet mais ñaari poule mooy tournoi mais bu ñu demee ba ci lañ bokk plus de cinq kilos ba 70 kilos final bi ki koy jël ci li ñu jot discuter dañoo nekk ci discuter mooy xool mise u 1 million lañ koy tegal wala dañuy jox 1 million 500 ci loolu la ñuy nekk di négocier staff Ouzin Production mais combat bi moom ba ba ngay bëri final bi chaque combat da am cachet. chaque combat da ngay am cachet yi nag commencement yi dafay faible boo qualif parce que premier bu ñu waxee cinq tour cinq journée yi mu jàll cinquante lutteurs mooy des seen cachet day yokk ba ba ñuy yegg fi ñu war a dem kon loolu noonu nañu prévoir ci li nga xamante ni mooy tournoi wu 300 lutteurs yi merci beaucoup bu amee ku bu merci Gora maa ngi lay sant bu maa ngi lay nuyu bu baax su ma juumul euh, li nga wax mooy ci li nga xamante ni mooy ambiance bi am ah. voilà ambiance bi moom dañuy jàpp ni ambiance làmb la làmb tout court xëy na nag du ñàkk toujours ñun bu ñuy organiser bu ñu amee lutte avec frappe ñi nga xamante ni ñoom dañuy invité ñu ni ko way ñoom nañuy woo rek ñu ñëw ci lutte simple bi xëy nag du ñàkk journée boo xamante ni dinañ invité waale ñi nga xamante ni ñooy def mooy li nga xamante ni mooy wayi wayi séeréer yi parce que adressé moom bu fa wax wax wax séeréer kon ñaari entité yëpp dinañ leen boole ci ambiance bi daal en tout cas li ñu bëgg mooy amateurs yi man di làmb ñu gis ay jeunes talent yoo xamante ni bu ñu ñëwee dinañ xam ni kat ñii vraiment am nañ compétition avant ñi ñëw ci lutte avec frappe mooy ci làmb ji di ci way di ci ambiance bi ci lépp loolu moom vraiment loolu lañ choisir ci journée bi ñu ngi ciy dox nag parce que ñun toujours li may wax rek du ñu bàyyi ñi ñu jàppaloon am na ñoo xamante ni bi ñu koy def 2014 ñun ak ñoom la woon ñi ngi ci ñi ngi seen i contact ba léegi ñu ngi leen di yëgal programme bu ñu ne ay ci rek dañ leen woo ñoom ñëpp. beneen bi ci des mooy tribune amateur moom dinañ ko créer parce que mënuñu jël euh, comme combat nommé yu ñu bëgg a def lu ci ëpp mbëri ay supporters la ñu indaale duñ leen boole ak ñi nga xamante ni mooy amateur yi dinañ jël benn. ci stade bi foo xamante ni dañ fa créer tribune amateur boo fu nekk spécial pour amateur yi kooku dinañ ko préparer incha allah merci beaucoup. 30 combats muy 60 lutteurs yi nga xamante ni ñoo war a ñëw ci benn journée loolu yaakaar naa ne loolu organisation CNG la. parce que comme ñun dañu dem waxtaan ak ñoom ñu xamal la ñu bër bu amul licence lu ci bëre te ñoom ñoo yor organisation ak arbitrage loolu ñoom ñooy classé bër bu ci nekk adversaire am fu muy nekk te yaakaar naa ni. ñun bi ñu koy def dañ ko defoon ci mbappat boo xamante ni saison dafa tëjoon ah, ah saison bi tëj ñu organiser ko di ko organiser fii Géejawaay CNG arrêté wul suñu suñu suñu suñu suñu journée programme bi dafa dem ba fekk si waat saison bi tijji parce que ñun bi ñu def boobu noonu ñi ngi def 26 journée su ma jumul démbalee mi yàgg yàgg na cee ñëw fekkee di fekkee programme bi. waaw ak père père Pallé 26 journée defoon nañ ko ci. fii ci stade bi nga xamante ni mooy géejuwaay bi fii saison bi dafa tijji am mbër yoo xam xamante ni dañu war a bëree ci sama sama tournoi bi CNG xamal leen ne leen ni ñoom comme dañ nekk ay mbëru licence duñ leen bàyyi ñu dem bëri di loolu moo taxoon suñu journée yooyu mu demoon ba benn moment bi mu am problème mais nekkul CNG arrêté wul li nga xamante ni parce que ñun forme mbapat nañ ko defoon organisation bi di jaar yoon ba saison bi tijji mbër war a bëree am licence war na ne damay bëree sans licence ñu ñu kii ci loolu. beneen bi ci des yàlla def na ni bi ñu koy def ñu fi tegoon ci ay journée yépp yàlla dimbali woon nañu ni dañ daan dem am autorisation am autorisation préfet demande service d'ordre ñu ko daan am normal yaakaar naa ni programme bu toll nii yaakaar naa ne bu ñu koy def pour mu réussir il faudrait que ñu concentré wu ci service d'ordre kooku moom parce que service d'ordre bu amul CNG lu ñu arbitré xalaatuñ ko sax kon kooku mooy suñu priorité la ñun kon programme bi moom dañuy ñi ngi ñaan yàlla que nañ ko daan defee ñu defee ko lu ko raw sax liñ daan am ci service d'ordre ñu am lu ko ëpp ci kàttanu yàlla loolu la ñuy ñaan suñu borom jërëjëf taalibe Bamba sant gërëm ñi nga xamante ni ñun ñoo fi nekkoon ak ñun ba léegi maa ngi dañuy sant gërëm ñi nga xamante ni ñoo nekk nag ñun ci journée bi mooy li ci jiital la presse wax naa ne su ma limee damay juum waaye awma seen fay yéen ñi ñëpp di sant ñi nga xamante ni mooy suma papa yi fi nekkoon di sant mbër yi nga xamante ni ñoo nañ fi depuis 4 heures ba léegi di sant ñi nga xamante ni mooy waa couverture maladie universelle ki ci ki ci nekk ci bopp bi ñu teewal teewal leen fi ñu koy wax Moustapha Mbengue maa koy sant bu baax di ko gërëm di leen wax ne lii bu amee nañu jàpp ni ñoom ñooñu dooleel ñoom nañu bëgg ñu dooleel ñu bu baax a baax pour ñu mën a def li nga xamante ne mooy suñu programme bi ñu bëgg def kon waa couverture maladie universelle aw ma seen fay di sant tamit ki nga xamante ni mooy Lat Diop parce que bi ñu nekk nii dañ ko gënoon miin ci saalu réunion politique wala salle bi nga xamante ni activité politique moo fi daan nekk mais tey ñi ngi fi nekk di def benn point de presse boo xam dañ ko def pour waxtaan ak askanu làmb ci salle bi nga xamante ni ñooñ toog di sant euh, Lat Diop mi nga xamante ni moo ñu ko jox nañu dem leen ngeen seen conférence boo paree ngeen loolu li nga xamante ni mooy seen programme dinaa ci jàpp lu ma ci mën lépp loolu leen bëgg ak luy suqali làmb ak luy suqali géejawaay man président Lat Diop sama loxo bi ngi ci biir loolu bu ñu ko waxee ñun dañ koy gëm parce que daf ko def ba tàyyi ñu gis ko kon yaakaar naa ni vraiment amuñu fayam ci li nga xamante ni ma def di wax ni Bafal comme mi fii en même temps nekk président écrit géejawaay mbooloo yóbbante boobu vraiment na ma bëgg président comme teewul da ko xamal ne ko sant nañ ko bu baax ci li nga xamante ni moom nañu defal lii tey di wax nag message bu may jàllale suñu maire mooy Aliou Sall lii ñu def nii war war na du ñu nekk ay ndaw nekk benn groupe vraiment ñu ngi koy wax mu tàllal ñu ngi koy tàllal suñu loxo pour mu jàpp ci li ñuy def en même temps di wax ki nga xamante moom ñëw dugal ci loxoom jàpp ci te xam ne ñun kat ñoo bokk même commune bi ñu nekk ak même département bi mu nekk kon vraiment moom war na mën a ñëw jàpp ci li nga xamante ni moom la ñuy def nii kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan vraiment ni ñu ko commencé woon ci ñaan ñu tëjewaat ko si ñaan wax ni Omar sécurité gis naa seen liggéey maa ngi leen di remercier bu baax di leen sant di wax ñëpp vraiment aw ma seen fay encore une fois Moustapha jërëjëf di wax waa waa ñi nga xam te ne mooy waa CMU ak ñi nga xam te ne mooy union régionale de mutuelle de santé ñoom it su nga ma yeggal nuyoo bi xamal leen ni sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen li ma waxoon rek laa expliquer man dinaa fexe ba cinq cent li nga xamante ni mooy bi ku weti maladie universelle dinaa ko dugal ci projet bi pour mbëri man lépp lu ma ci mën dinaa ko def parce kat dafa maa ñor. parce que wax naa ko sànq avant mi ñëw mbër di feebar amul lu mu fajoo ñu koy ketal man neexuma daf ma métti te tey couverture maladie universelle bu ñëwee ñëw garantie nit ki ci à 80 pour cent yaakaar naa ni waxuma mbër sax waaye képp ku dégg message bi war nga jàll message ba ñëpp mën ñee am ci carte couverture maladie universelle kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax père ñaan bi